ki leer na ma reewandeem gi mu rew motax bitel bi ma joxoon mu jël ko denc. wa <laughs> ban bitel non cher nga ma bitel bi joxon pour ma sam. wa no dama ko tek quelque part di xaar ki ñëw fekkaatuma mako ki moko ko denc. caati am na loo xam kenn ko fooy de. yaay sérieux man gisuma bitel bi man sama bitel jour bi mako ko premier jour la ko sango mu jeex man bul sanni sa bitel di mako ko jënd nga bëgguma lool waaw wax naa la yaa denc génneel bitel sama waaye ñaar ñi. kon biteel ma leen joxoon ba léegi sangoowu leen ko. bon ba léegi ñu sangoo. laa ilaaha illallaah. biteel bi biteel ci sonn. Ah? ah. maa ko jël. alhamdulilah xam naa ni sonn naa ci sonn koo xam ne paataar ak na mu sore. këpp naa loo këpp. biteel bi tuur naa ko. bëri woon bëri woon na ay. yow laaj ma la waaye yow. sorti. sais ah. parce que daf may comme ça on pourra échanger et tout donc sur ce est-ce que je peux avoir ton numéro. je te stoppe tout de suite. déjà manque de civilisation Tu viens dans ma maison, tu entres dans mon salon, tu t'assois sans pour autant qu'on te donne l'autorisation. De deux, j'ai pas besoin d'amis, mon cher. J'ai qu'un seul ami et c'est mon mari. Désolé yàgg nga hein. <laughs> comme yéen ni mais c'est révolu c'est archaïque li dafa yàgg c'est depuis Mathusalem lii amatul yow xanaa da nga ñëw yow on dirait que dëkkoo ci temps bi. Dakaaru njaay bi ñu nekk fii laa juddoo fii laa yaroo te aussi fii laa màggee jusque dama am éducation de base je suis pas comme les autres. ok. Bon, tout ça c'est pas important. Et tu sais, affaire au mode là, j'aime bien tout ce qui est stylé, tout ce qui est solo, ce mec et tout. tu vois que c'est style de faire la fête. Et j'aimerais bien en profiter de le modèle. Est-ce qu'on peut prendre une photo hey, calmos. Asseyez-vous. N'essayez surtout pas de m'approcher. Et s'il te plaît, arrête de me draguer, d'accord te quoi déjà c'était juste tout comme ça parce que voilà quoi man dit bëgg jigéen bu am caractère jigéen boo xam c'est quatre là. depuis tout à l'heure maa ngi lay dégg yaa ngi wax sa et tout Voilà, c'est rek la a. Ah. et je sais qu'avec toi je pourrais apprendre beaucoup de choses sur surtout les femmes mariées parce que man tamit bëgg que dugg ci ci ci kii carré beau quoi. sëñ je tu commences à trop parler. Chat, ngay set nekk fi demal ba oh my god. non c'est pas grave façon chat, naa ko mën ko quoi a pas de problème mais c'était juste pour nous sympathiser parce que nit booy ñëw ci aussi fekk nit war nga c'est pas grave. yow ni nga naqaree gis lan la lu xew dama laa wër ci dëkk bi ba sonn yow li ngay denc lu xew ah yow jàng xanaa dangaa fàtt ne ci weeru koor la nekk man weeru koor kenn du ma ci gis de <laughs> ku ma ci rëbb di nga sooy loolu mu naqari ci yow doo changé yow yaa ngi ci sa affaire mag yooyu ba tey ba suba wuy ma kaa moo fi am kaa kaa ngaa ngal wot ndaam sama jabaru mag bi ni ci kër def lu ko neex sëyul sëyluwul mak sama yoy ñu kan man ko bëgg koo indi ko ci kër gi muy sey xana jaaru len casting man nak lima jaaxal ci affaire bi moy man bi waxe sey ba tay suma tedde yow lay gént sama yaay su yow lay gént suma li ci nga ci xana du ya fi wara sey kon nga ma mané ya fi wara a yow la bëgg may sama mag nga ñew ci kër gi di daaw yow doo ma wax lu gën a neex lii ak man li may rêvé ci sëy yëpp mbaa du yàlla daf ma nar a nattoo sëy ci wéeru koor bi may jaamu tamit dafa leer mbaa yëg nga ne ni seen avance bu ñëwee léegi léegi ma sëgg bëri. eh. ko pare na. <laughs> ay waay xale bi moo wóor. eh man li tax ma tàmm ragaluma ko waaye nag kaay ma wax hmm. boo ñëwee man ak yow ak sama yaay ay séddoo ko la ñuy fubal. wala biti la fanaan xale bi ñu koy tucc tuccal moo tax may ñu la fi de na sa xol seet jeex na yow may ma tuuti rek man sama yaay ñu mhm. waxtaan waxtaane ko takk la indi la ma sëy sëy bi dootu ko defati jongo ma ba yàq sama yaay loolu may wax ak <laughs> sa xarit bi jongo man ko mu fi tay la gën a jongo ma ba tay <laughs> barke rasulaay <laughs> macha allah yàlla ñu yàlla fa